20h21h, c'est le Talrec Show avec Talrec sur Vibe Radio. amee lenn lu may jëkk wax à part sama gars yi ñëpp bu yeboon na ngeen min sama kanam léegi léegi ndaxte du fi mës jóg boycott boycott mais tawul de fi ngeen ni bañ nañ fa dugg waaw daal cere yëre cere tubay cere sa rapport ekee dugg booy na ma loko warwaan du daw benn jomo te xal booy yoruñu gembe ma gaadu coofi ñëpp teg ma short teg comme que jóppaloo lu mbooloo dama luur te tànk bokk ma si nguur gi duma jël benn régime ah, benn régime reptile musique bombarde comme Palestine waaw boycott mu fan gaalu dof du să cău la gând în fără pan am nu fac ai dop, hip-hop, benevol du curmon Tot mă si ai mer, mai contrariu Dominic Strauss-Kahn I'm the hottest nigga in my block They keep on dissing me and I don't know who the fuck they are Hottest nigga in my state Fuck my ex, I got a lease I got your girlfriend, then I leave Eu n-a ghis de mă, te ham gând, te-am Holy shit, 93 damay door a door yo plaat jóge booy too ngoor génnal si gaale ñu nooxalu dugal sa gaale paa bi dalay gën a door tapet te mënuma tapet tapet danga xew mel ni clapet tapet sama tuur si ay junni xaati mel nekk loolu moom ay stoppé stoppé waran gam loofi waaye dama siw dama siw money uh-huh. nigga I got money maa ngi doom fokk kaa nañu déggul anglais nigga nigga doom bétu musique ak a lakkale kennen zie je wat ik ken. Wow, dapper boy, you je te. Wow, moet on your distance, fuck you. Hennessy him? my cup, wow. Sitting nigga on the top, wow. Let the cap our flat. Hey, fuck you, nigga, homo ah. city nigga. Do it since it's a pussy. Young nigga, boy, be dapper tanga nigga season. young nigga, y'all could goed diggen nigga, bubble nigga, Man, kan je tekenen. En bro, bro, bro, busy. Niet like that, man, motherfucker, gun, dan kan je busy. Okay, niet like that, yo, nigga, je leren. Young man, ben je tunen, wow. Ah. Fuck you, nigga, boy, be dapper tanga man, this a pussy, doe ga jangel, Hey. Y'all yeah, yeah, yeah, wow, yeah, niggas, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, come on, man, ah, hey. job amul toog dañ ko teg ci temps ba taxaw ibuloo tabax samay ab niru sët dajalaay brique concurrence ak dangote banque bu ko nara dafa risque doon berlin eh. biir besa yaawoo xaalis nah. génn mbaa bakkan des ndax jamono ji xaalis seen nit yàggatul léegi nga sànni ci jaam ra ndax am ay dërëm yaay doon ñaan mu gën a yokk borom ma tàccu job bi oh, di fay xaalis soo laay nobante ndax moo nara takkaleen jabar yu tooy dama fël sa rapport noyé mu koy teg di ba tey amul nopp bi ci néega Mango tech, but I ba tey improviser di si dugal ay baar vibe radio ñu ngi nii you already know ñëw testé li kaa ñoo bro ey lalal ma tapis rouge bon fait d'herbe maa sama gaay ey flow bu Detect batay raar di teg ba tey sama feusi capitaine Gérard sol yére bu mayo Liverpool sa rapport dont ton la nigga mayo Monaco Tech di teg maa ngi koy teg nigga rap sax bay wàcc bit di yeggaat sa rapport dañ ko tucc mu daw comme temps booy bu ñuy joué eggaat What's that? What's that? What's that? Yeah la tapis bu rouge. te sa famille di muñ. waaw jaabi motherfucker ni nga rouge rouge rouge rouge. mel ni rouge bi sa koñ. waaw da ngay taxaw te doo ko tey. waaw jaa dangote ni nga booyee door ma démb door ma tey. jaa pii ni nga du ko a yee. MC fi ñëwoon nee nañ song dee waaye ku song dee. jaa pii maa foog. bit bi yeeg bit bi yeeg ma ñëwaat dibir yeeg dibir MC ma bu bëggoon dibi leen dibi leen jaa pii ñëw nga ñibi leen NIBILE, nibble. Now I stack, stack, motherfuckers, about that NBA, NBA. Motherfucking nigga, eh? NBA, NBA. Da ngay ñëw faj faj ma def fat la yaa bi motherfucking nigga sa gel who's a far la damay teg motherfucking nigga booy café be that far na What, what, motherfucker garab laay jaay mel ni pharmacie motherfucker tak aksi got re benn tak aksi yaa bi te sa tak taksi wop did de tak mas Y'all feel a Mackie, watch it, busy, vegan, tech nigga, might watch it, Mackie. key. Bang. bang, bang, Y'all feel a motherfucker, get it, be bang, bang. Ah, but Ben and Boy, but Ben and Boy, MC Zippy, no one, they one, two boy, Teddy, dang and bang, bang. Ah, ah. What's up?